ojo ñi nga bi aussi xam nga tey damay wax chaque jeudi il faut que ñuy rek daal di fàttaliku ñi nga xamante ni ñoom ñooy artist yu mag euh, yi fi nekkoon euh, garmi nee naa jeudi moom euh, nekk na jour bi nga xamante ni moom mu gën a ci jour yeewu leen yi ah, day waaw day day day indiwaat mm, yenn yenn souvenir et aussi ñu gis ne suñu artistes yi seen musique bi dafay rek daal di traverser tous les temps mm. waaw xam nga Dieynaba ñoo ngi nuyu Baba Mal de passage mm, ndax ku nekk xam na ne artiste international ku ne xam ne tam artiste complet la ndax ki instrument yi nga xam ne nii moom la boolee bu de nit bu dee woy yor xalamam te boo ko wooyee mu tëb fecc kooku artiste complet rek moo ko man ba pare tamit am na fu mu yóbbu musique am na tam fu mu yóbbu alpulaar c'est très important soo marqué soo nekkee ci benn ethnie nga xam ne lii mooy sa cosaan dañ cay dañ cay def sa touche ba ñëpp xam na ko te buñ nee alpulaar xel yépp dafay tàbbi ci Baaba kon ñu koy ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal jàmm baax a baax mhm. waaw dëgg baaba ay sutu wadd baaba ay sutu wadd waaw mooy yaakaar naa kuy dem kuy dem ah, voilà donc jaxoo yaa yaakaar naa macha allah macha allah moom daal ñu koy ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal jàmm bu baax a baax <laughs> mais mais mais sànq ex sànq ba ñu teg musique bi dafa wax lu am solo. mais mm. na artistes yi nañ leen gën a bàyyi xel euh, di leen gën a dugal ci suñu patrimoine culturel. Mm. Euh, parce que dafa nekk lu am solo surtout euh, ak fu ñu mënti doon nekk mais surtout ngéwél gi. Mm. parce que ñoom ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay suñu suñu ay repères. mais traditionnel parce que tradition orale dafa mës a nekk lu am solo ci suñu suñu histoire réew. waaw xam nga Dieynaba traditionnel ak say des xam naa ne macha allah dina ci ñëw. ndax suñu ko pelloo moom am na lu mu ci xam ndax musique nekkul ne moderne rek moo moo samp woon ba yëf yi taxaw ci traditionnel ci lu ñu jëkkee ay mag ñu baax nekkoon fi di ko def léegi gis nga ci ajaama joojo feggoo ak fàccaam samb mm. feggoo tamit ak euh, dëgg-dëgg euh, sa sunu soppee bi nga xam ne moo dëkk Louga euh, xam naa dinaa ci ñëw léegi mm-hmm. su ñëwee sama mémoire Mm-hmm. moom tamit ñoom ñett ñëpp ku ci nekk tubaarkàlla wàññiku nga mais ñu liggéey liggéey bu rëy liggéey liggéey bu mag ci miri ci musique traditionnelle mm-hmm. musique traditionnelle nag euh, mooy way benn instrument mën na la bañ a dal da ngay jékki-jékki rek mbay sar ca kaw aj way wi ah, wàcce ko mu am ay refrain nga def ko ci biir mm. te benn instrument du la dal mu mën a tàbbi ci nopp agsi ci xol am lu mu ca def mm, mm. kooku traditionnel ku mënul loolu su la musique su la suñ la accompagner da dem rek waaye buñ la bay suñ la bàyyeeg sa bopp doo dem man daba sëy moom koy def par contre waaw daba sëy daba sëy waaw daba sëy euh, voilà daba sëy moom daba sëy lii rek wu ak Aïda Samb sax mun traditionnel mbenn jaata mbenn mhm. voilà mhm. Aïda Samb dama ne macha allah kii cuun ah, kii ah. kii mu tudd sax kii cuun waaye te mu nekkoon ci ousa damay fàtte du ñanga euh, cuun ndiku non non pas ndiku cuun. pas ndiku cuun ndiku non non non ah. ndiku cuun moom wéyli wéyli la. Ah. waaw moom mooy moom kooku moom kooku moom boo ko foo ko ko wokk macha allah. war na ci war na ci mën a dem. mais daal mais daal mais daal euh, euh, euh, Dieynaba. Mhm. war na ñu si waat daal suñu cosaan. téyewaat ko nag bu baax a baax ndax musique moderne moom. musique traditionnelle moom mi ngi mi ngi mi ngi far. Mhm. mi ngi réer li fi mag ñi bàyyi woon rek ci la ñuy concevoir di ci jéem. parce que xaritam bi ñu ñëwee ñoom ñëpp dañu tàbb ci musique moderne bi fàtte musique traditionnelle te du yoon parce que euh, ni mu ko ni mu ko waxee rek Amadou Mbaye Gaar mi am na loo xam ni li liggéey réew ba li euh, réew yegg si foofu noonu hmm. te tubaab raxu ci loxoom hmm. moo ëpp doole fuuf li nga xamante ne moom la fi tubaab andi dëgg la tey musique bi nga xamante ne moo nekkoon Sénégal hmm. dañu ko euh, dañ dañ dafa daf fi wàlliyaan si ndax musique boobu boo ko doon xool ay tango la woon ay valse ay cha-cha-cha yooyu ñoo fi nekkoon mais yooyu fi nekkoon ñu ko doon ñu ko doon fecc ay ay tango ay valse wala cha-cha-cha wala salsa donc musique yooyu ñoo fi nekkoon mu ay musique yoo xamante ne musique gu étrangère la mais mu am musique traditionnelle gis nga musique boo mënti gis cosaanam tradition la ndax tey booy gis musique bi nga xamante ne tey muy ñoom Youssou Ndour muy ñoom Thione muy ñoom ñëpp koo ci tëggal buumu euh, xalam mu way ci te way ci bu mu xalam gën a métti mm. ndax nag technique yi mu laaj ak couleur bi ak fi ngay wayee mm. dafa métti trop ñoom dañu jànge foofu ba noppi mm. ndax instrument boo mënte andi tey ci wàllu musique moderne ci musique traditionnelle mooy baayam boo andee euh, li nga xamante ne mooy piano balafon ay maamam dëgg soo andee li nga xamante ne mooy euh, guitare xalamay maamam soo andee trompette euh, tuxuru may maamam waaw loo soo andee arab Kora euh, mooy maamam. soo andee euh, li nga xamante ne mooy batterie. cool talmbat mbëng-mbëng. Mm. Euh, ndeer mm. gorong at li nga xamante ne moom mooy tabala. yooyu noonu ñoo seen ay maam. Mm. donc musique yëpp instrument yi nga xamante ne tey ñoo jur instrument moderne yii tey ñuy wax. Eh, instrument traditionnel yi nu fii la ñu jugee. ñu war ci bàyyi xel delloo leen jukkal dama wax sànq ni. bu ñu bëggee ñongal suñu culture. ministre de la culture bu ñu fi teg. war na mën a am benn conseil. boo xamante ci wàllu culture la boo xamante ne magum géwél la ndax am na loo xamante ne ci wàllu culture binduñu ko dañu ko mooy kii oral voilà on culture orale ndax lépp mënuñu ko bind ñoom nag biñ lañ fal li ñuy jàng lu ci ëpp ci wàllu dañ ko bind ñoom ñuy ministre buñ fi mën di teg li nga jàng dañ ko bind hmm. mais li nga xamante ne binduñu ko te mu téye réew mi te ñu ko defaree Sénégal. loolu nag magu géwél yi la. mu daf ci war a am dañ fa war a am chaise biir ministère de la culture boo xam ni. Euh, ku falu boo ñëwee ñu wan yoon ci wàllu culture ba nga xamante ne tey musée yi fi ne. at euh, Sorano bii ñu bàyyi. Mm. Sorano warul mel nii. ndax Sorano. Euh, c'est vrai que ah, même avant la pandémie Sorano dafa xawoon am euh, tuuti. tuuti problème voilà tuuti problème. dafa wàcc mm. ndax tey booy xool foofu temple la. Mm. Euh, mi président bu ne dalal nañ ko fa. Mm. artiste bu nekk way na fa. te seen kër la ñoom donc pour daane rek wax ni musique traditionnelle. dañu ko war a yaatal bu baax ci réew mi. daf fi am cër bu dee ci wàllu pour centage la. 80 pour cent war na leen ko jox ñoom. tout ndax booy xool ci wàllu way ñi ëpp tey ñi fi nekk ba tey di way. téye way wi. traditionnelle la. boo koy xool justement ci musique traditionnelle boobu sax la ñuy desandi peut-être balaa ñuy ñëw ci euh, euh, leneen euh, ci xibaar. Mm. sànq maa ngi lay wax ne la xade xale yi ñu ngi investir bu baax a baax ci musique traditionnelle sànq xadi ñoo cuun moo ma réeroon donc ci sama bopp bi mm. donc on va juste écouter un tout petit bout benn extrait bu ndaw xadi ñoo cuun et puis ñu ñëwaat mais un mm. tout petit bout ah donc waa régie Olha, pensa waaye neex na. Dieynaba eh, sama yaram daw na. Eh, xale bi dawloo na ko. waaye ma am ci nag jàngat ñaari jàngat yu wér. Mhm. bu njëkk bi tey ci xale ñu war a recruter. Mhm. dugal leen ci Sorano. Mhm. xale bi def ci bopp. xale ñëw cuun. parce que mag ñi noonu lañ daan def. Léopold Senghor ma saan tàbbi ci dëkk. su demee Thiès. daje fa ak xale bu ñu naan Alimatu Mbay géwlu Paris boobu ci bas âge. Mm. dana def ne xale bi dañ ko war a jël. te su demee su demee su demee Kolda. Mm-hmm. wala mu dem wala mu dem ci beneen dëkk bu bu ko jegee fekk fa Fanta Saaxo mm-hmm. mu woy mu ne kii kenn waru ko bàyyi fii. dafa am loo xam ne dafay nelaw ci doomu aadama. Mm-hmm. da ko war a yee. soo ko bàyyi muy nelaw yow yaa ko nelaw loo. moo tax am na ñoo xam ne euh, li nga ne dañu war a tàbbi ci biir ministère de la culture. absolument am luñ ko dimbalee. Mhm. dafa nekk loo xam ne lu am solo la mhm. te da ngay li xale bi way tey moo xew. union euh, euh, euh, mooy union gouvernementale bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu créé. Mhm. te ñenn ñi di ci kaas. naan lii ndax war na ne. moom la xale bi moom lay indi. te lu war a nekk la. dëgg réew kenn kenn nit kenn nit du yor flambeau bi. dëgg bu xëccoo jotee mën nañu xëccoo mais bu ñu ko ku ci nekk war na ci tàbbal sa loxo. ndax intérêt réew mi. Mhm. nit ñi dañu war a fàtte seen bopp. opposé am na solo. waaye nag bu réew soxlaa tàllal la loxo bu fekkee ne bëgg nga sa réew da nga ko war a wuy xale bi defaat na ko ci biir way am na yoo xam ne yii jay na ba xale bi li mu li mu li mu boole li mu boole xoma sénégalais yi jàng nañ ko wala jànganu ko te ak a yàgg jàng naa ko te way bi a yàgg donc Khadija ah, Thioune donc toujours euh, euh, d'actualité ci loolu sax la desandi parce que bu ñu ne jàmm du ñu ne rek jàmm ci biir Sénégal mais jàmm ci Afrique yëpp euh, mm. donc ci actualité bi nag démb Mamadou Maygar mi bokk na ca président Alassane Dramane Ouattara xam nga dañu ko éliraat ci troisième mandat foofu ca Côte d'Ivoire démb ki nga xamante ni daana daanaka moom mooy euh, moo ko peut-être entre gën a sonal ci kuje gi. Mm. Euh, di euh, président Bédié démb nag daje nañu bi nag nekk daje bu njëkk bu ñuy rek amal depuis crise bi daal di am foofee ca Côte d'Ivoire la sous-région nous intéresse il faut que ñu ciy rek daal di bàyyi xel démb nag bu nekkee bën nañu rek daal di gis image yu Alassane Dramane Ouattara ñu ñëwaat. Nous et à tous les Ivoiriens, et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Par euh, la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, le silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrés donc euh, démb la ñu gisee ñoom euh, président donc euh, Henri Konan Bédié ak itamit président Alassane Dramane Ouattara démb gisee nañu ci hôtel du Golfe mu nekk nag benn lieu bi nga xamante ni lieu symbolique la surtout nag ci crise yi nga xamante ni Côte d'Ivoire amaloon na ko ci atum 2010 jàpp 2011 2012 donc foofee kon na ci Abidjan démb nag la ñu waxtaan ñu ne dañoo bëgg rek daal di briser glace bi waaye nag Mamadou Mbaye Garmi li ci rek daal di peut-être ñuul ci sow mi mooy dañ ko def ñetti weer gannaaw kon violence yi amoon foofe ca Côte d'Ivoire lu toll nag euh, ci cinq personnes daal di cay rek euh, euh, faatu ci jamono ji nag cinq blessés la ñuy daal di nemmeeku kon foofee ca Côte d'Ivoire ba ñu paree ci élection ma la ñu ñëw woote si waxtaan gannaaw bu njiiti faatoo ba noppi. waaw moo tax moo tax jay na ba man man ndokkeel sama réew. Mhm. sama réew bi muy tabax ñi nga xam ne nii ñoo war a dese réew mi dafa tabax mentalité yi loolu la ñu wute ak yeneen président yi. Mhm. am na ñoo xam dañoo seen réew. su population ba meree dañuy dal ca kaw réew ma yàqu ñun nag dalun ñun bu ñu meree mën nañu kaas mën nañ def yépp mais duñu yàq dara kooku nag ci mentalité la mais ñaar ñi nga xam ne ñooy xëccoo suñu jëbee ci violence di am nit ñi nit ñi balaa ñoo dee war nañu def ay réaction mais duñu bàyyi ba ñëpp tëdd ñu ne nag dëgg-dëgg nañ daje waxtaan waaye ñi dee kon ñoom fu ñu féete hmm. wallaay euh, Côte d'Ivoire de démb démb affaire yi bari waar uh-huh. te am na jeunesse yoo xam ne yii macha allah doy nañu waar mm. seen esprit doy na waar jam rey moom lañ leen mooñaale moom lañ leen mooñaale kon ñoom ñaar juboo rek moo leen war bu ki nekkee président ki nekk premier ministre mm. boo fa toogee tam ba sa wàll jeex nga jóg dëgg-dëgg xajal keneen mm. parce que réew de réew tabaxuñ ko pour kenn mm-hmm. du titre foncier. Ah, boo xam ne dañ koy doonante. wallaay waaw loolu tamit dafa nekk solo jay na nekk na lu am solo euh, moo tax euh, incha allah dinañ ci rek euh, gën a daal di topp actualité bi nag bëri na surtout par rapport ak immigration clandestine bi xam ngeen ne député Mamadou Diop Decroix déposé na ab question foofee ci assemblée nationale aussi pour rek daal di ñu xamal ko lu jëm nag ci wàllub lii di immigration clandestine ñu daal cee waxtaan bu baax a baax foofu ca. Euh, foofu ci assemblée nationale leneen li nga xamante ni ci xibaar jot nañ ko tamit euh, ni ki euh, démb mooy benn rapport bi nga xamante ni police génne na ko nekk ay statistiques délinquance ak criminalité bu mois d' octobre xam ngeen ne nag léegi police dañoo soppi seen manière de communiquer je mm. pense que dafa jotoon ñu daal di aussi gën a ubbi lu jëm nag ci seen ay communication wane nag lu jëm ci seen wàllub liggéey ci nag xayma rek ah chiffres na waaye ci xayma 187 virgule 274 kilogrammes de chanvre indien la ñu rek euh, daal di jàpp manaam yamba bi donc euh, moom la ñu jàpp kon euh, ci mois d'octobre bi lu toll nag ci 2600 donc 21 cornet maanaam cornet yu ndaw yi nga xamante ne dañ koy lëmbës ba pare di ko jaayante police jàpp na ci lu toll kon ci 2621 ak 1522 juin <laughs> man man de Mbaye da nga ma réeral sax Mbaye man yi nga xam dara laa ci xamul Mbaye cornet beeg bu nu tëj beeg bu yooyu yëpp ah, non cinquante neuf cinquante neuf boulet de cocaïne non waa police non ko noonu rek lañ ñu daal di jàpp mu nekk ay xibaar yi nga xamante ni euh, foofu ñu ci rek euh, daal di euh, wax lu jëm nag ci wàllum Frontex xam ngeen ne nag dañuy surveiller bu baax a baax géej gi ak wàllum immigration clandestine ñoom nee nañ teg nañ loxo lu toll ci 1537 migrants diggante Soumbédioune Bargny ak Tëngéej Mbour Saint-Louis jàpp nañ ci nag lu toll ci 1537 donc migrants ay ndaw kon yu bëggoon a jóge jóge fii ci Sénégal euh, pour dem kon euh, ca Espagne euh, ñu ñu jàppaleen 1537 donc personne nañu jàpp ci mois d' octobre bi voilà c' est énorme euh, c' énorme mais ci loolu jàpp nañ lu toll ci euh, vingt neuf convoyeurs mooy ñi nga xamante ñoom ñooy organiser voyage yi euh, jàpp nañ ci kon vingt neuf mu nekk li nga xamante ni ay chiffres la yu waa police nationale daal di rek joxe ci wàllum kon ci wàllum statistique yu ñu rek daal di def liggéey bu am solo bu ñu rek daal di def tey moom amoon na jotoon na police di def genre action yu mel nii mm-hmm. di def genre communication bu mel nii pour ñu gën mën a leeral askan askan ci li nga xamante ni moom moo xew parce que démb rek ñu ngi ko doon wax donc 1537 migrants la ñu daal di jàpp ñoom waa Frontex mmh. mais loolu boo gisee euh, Dieynaba dafa c'est important ñuy mën a xam à chaque fois jéego secteur bu ci mënti nekk lu mu def euh, joxe rapport mmh. ne fii laa ci tollu lii ak lii day tax mmh. xel yi dal ndax ñii dem ñun xamuñu lim bi ñoom xëj na am na ñu lim bi ñu ñu jàpp aussi xamuñu lim bi te am na nag loo xamante ne defe naa ne euh, bu ci police Euh, dugalee loxoom. population bee ko ci poussé ñiy dem. war na noo wax ak ñoom suñu ay rakk lañu suñu famille lañu. métti na te ñoom dañu jàpp ni danañu àgg dara leeru leen ci. géej at nu mu toll. wóorul hmm. chaque jour ngeen gis kaay yi lu ne ñu ngi koy wax. bitim réew dafa toj. waaye nag koo ne fi mu toll nii toogal da lay lan laa war a. démb rek démb rek ñu ko doon wax yow ba nga demee foofu noonu tumuranke woo. mais tu tukki ak tumuranke ànd teetee tukki tumuranke. tukki ak tumuranke ñoo ànd. mooy teetee. tukki mm. tumuranke. Mm. te euh, ñu ñu ñoom dañu foog ne foofu c'est l'Eldorado bu ñu àggee dañuy tekki dañuy am am ay bu ñu yegsee am ay milliards tabax. Mm. ñaata ñoo dem. te ba tey la ñu bàyyi woon seen kër ndey at seen kër bàyyi maa nga fa ba tey. Mm. la dara coob soppeeku wu ci. Mm. ndax dafa métti te loolu moo am nañu wax li am ñoom bu ñu jàpp ne foofu moo gën fii nit a ngi fii ci réew mi. Mm. di liggéey loo xamante ni ki ni ci bureau mi liggéeyu ko. Sénégal nag defe naa ne ku góorgóorlu di nga am dara xaalis bi ngaa jël di ko def ci gaal bu dee million la wala trois cent mille wala quatre cent mille xaalis boobu boo ko jëloon tey. moom Amadou Amadou da nga daal jënd table jënd ci marchandise teg ci. mais di nga am dara loo loo te nag loolu moom mooy loolu nag moom mooy am-am. ndax tey dafa am loo xamante ni jeunesse bi dañ ko dugal seen seen bopp. mooy ku ci nekk da ngaa bëgg doon milliardaire wala millionnaire te doo liggéey. mënta ne mënta ne. at démb rek moo loolu lañ doon wax mooy ñi nga xamante ne dañoo yàqamti tekki. lu nga yàqamti tekki. mais lu teel teel a sotti baaxul. Mm-hmm. avant quarante ans lenn rek a la war liggéey rek. dëgg la ak wut xam-xam ak wut xale lii rek ngay gis léegi kenn ku am vingt ans dama bëgg a teral sama ndey dama bëgg a teral sama baay dama bëgg mais xale nga tollu woo ci li la war mooy nga wut xam-xam de de six ans à vingt ans jàng de vingt à quarante ans nga gëstu à partir de quarante ans nag ngay commencer nag léegi di mettre en valeur li nga xamante ne moom nga jàng pour mën a commencer jot tuuti loolu c'est important nit ñi xam ko ñu xam ne à partir de 40 ans. lu soriwul. déedéet ndax lu avant 40 ans loo am wóorul. dëgg la ah wóorul. tu es encore ah jeunesse. Ah ñu ngi jeex ci 60 ans am mën nga ko ñàkk. ah avant 40 ans loo ci am wóorul. donc diggante 20 ak quarant yow liggéey rek la war wut xam-xam rek la war ndax dafa am ñaari muy mag ak xale lu leen wutale. Hmm. teraanga mag mi ngi ci naaj. teraanga xale mi ngi ci keppaar. lan la laa bëgg wax foofu. teraanga xale. ci keppaar la ne mooy maanaam da ngay toog ci taatu garab ñu dee la jàngal ñu di la sax wala nga nekk ci classe keppaar la. wala nga nekk ci amphi keppaar la wala nga nekk université keppaar la. si abri la mooy xam-xam rek la war. mag mi nag moom teraangam mi ngi ci naaj bi mooy bu xëyee lenn rek lay ñaan mooy na jant bi jug muuti lu ma donc ñaar yooyu nag mooy différence su xale ak mag. donc xale bi bu fekkee ne de zéro à quarante ans wanuñu ko yoon bi mu tarbiye ñu jàng ko jàngal ko naka lay dogoo. dogu moom mooy may nit teraanga. naka la ñuy dogoo. Ah, maye de moom si def ci yow ay valeur dëgg la def ci ay valeur ba nga ah, xam ni tey boo amee di nga ko mën a di nga ko mën a téye. dëgg dana mën a des sa loxo. Mm. ñi fi am ñëpp avant quarante ans sooy xool lenn rek a nekk seen bopp dañuy dabu. ay folie rek li ñuy def. Mm-hmm. li ñuy gis ci àdduna bi dëkk dëkk bi fi mu toll nii Sénégal. xale yi yor ay mili millions wala milliards mais ay folie rek li ñuy def loolu folie la. Mm-hmm. folie la parce que dafay dafay tax ki nga xamante ne moo lay seetaan nekk ci réseaux sociaux bi. Mm-hmm. naan ki dama bëgg mel ni moom ni moom. wërsëg yemuñu. wërsëg yemuñu nga tàbbi si nguuta. wala nga tàbbi ci nguuta. te boobaa dafay tax xale bi dafay yaafuus. xale dafa war jàng. wut xam-xam. avant quarante ans loo am wóorul boo amee quarante nag nit mën ngaa dund ba quatre-vingt-dix ans. Mm. te ñàkk wër gàtt wër sag nag la ko mag ñoo waxoon. Mm-hmm. xam li ngay fay ak bu dee. <laughs> loolu moom. fa la gàtt wërsëg yem. fa la gàtt wërsëg yem. <laughs> balaa maa dee rek euh, euh, euh, le le premier wala la dë nga saam donc yaakaar naa loolu moo gën a bëri ci suñu. ci suñu toog di xaar warul gor ne ne ne voilà ne ne yàlla baax na. yow kay jotal benn rek commencé lijjanti yeneen. dëgg la ak say dex xam naa rek naa ci <laughs> la ci yokkal rek tuuti. Mm-hmm. xale yi tamit bu ñu leen di bundu xataal. wane ne kër gi amul dara. Mm-hmm. ñoom la war. Mm-hmm. du seen devoir. waaw nekkul devoiru parent. dëgg la say doom lañu. jàpp ci te jàppale leen li nga mën fur et à mesure ñuy dox su wërsëg yu ñëwee ñu mën la rendre monnaie mm-hmm. mais bari na ci ñoo xam ne nii bu ñu nekkee ci kër gi mm-hmm. duñ fa am jàmm mm-hmm. démb rek ñu ko doon wax ba dañuy defee ne dañu war rekk génn mm. pour wuti pour wuti te wutin wi tam du ñu seet nan lañ koy doxale mm. mais da ngay xool mille et quelques personnes ñu ne moom la ñu jàpp ci ñuy dem ñu ne vingt neuf personnes yi nga xam ne ñoo leen embarqué. Mhm. mais vingt neuf personnes mille et quelques weccewu leen. mille cinq cent et te mille yooyu le dañoo encaissé euh, euh, vingt neuf yooyu dañoo encaissé mille et quelques yooyu le. ku ne trois cent mille ba pare ñooñu encaissé leen demuñu de. Mhm. seen kër lañu tëdd encaissé seen xaalis. Mhm. yabal yeneen i nit. ñu yóbbu ne leen yóbbu leen leen leen. kon kon kon vingt neuf yooyu le am nañu pen bu mag. boo xam ne bi moom la ñu war a teg seen kaw. ba ñeneen ku ko ko dégg doo ñemee embarqué benn nit loolu rek moo koy moo koy moo koy moo koy lijjanti parce que balaa nga naan naam da fay nekk ku ñu yóbbu képp koo gis mu dem dafa am ku la yóbbu dëgg la ñooñu buñ la yóbbu doo bougé mètre kon ñooñu ñoom la ñu war a teg ay mesures yu leer ba nga xam ne mbay benn gaal dootu jóge ci réew mi dem génn génn ci réew mi jëm feneen. Mhm. convoy convoyeur yi moom généralement dañ leen daan ba yóbbu leen ci kanamu procureur ñu def leen mandat de dépôt mais généralement candidat yi nga xamante ñoom ñooy dem maanaam ñiy dugg ci euh, euh, mi wax euh, donc c'est important ñi nga xamante ñoom ñooy yóbbu xale yi am na sax yaakaar naa benn député bu ma dégg mu ne hmm. seen daan yi di teg dafa war a gën a tar voilà je pense que benn député xaw directeur ANCAR yaakaar naa laa Euh, mu koy rek daal di wax en tout cas di euh, euh, ñaan daal sutura bu baax bu baax a baax ci suñu réew mais surtout lu nit am rek yal na ko rek jik mm. yaakaar naa ne loolu aussi lu jara ñaan la balaa ñuy ñëw ci tey sargal mi ñu nar a sargal sëñ Abdou Karim ak